daal leen ak jaam dañu koy door rek fête de la musique bi ñu doon amal démb di le 21 juin mu nekk bés boo xamante ne bi ci Sénégal wërngal képp fépp fu nekk rek ñoo ngi fi doon amal ay concert ngir célébrer li nga xamante ne bii rek mooy la musique bokk na ci ci gox-goxaat yi nga xamante ne bi ñoo nekk diwaanu Ndakaaru fu ci nekk rek démb boo fa rombee nga fa tegu podium di fa amal ab concert ci Parcelles Assainies ba ca golf golf moom ki nga xamante ne bii rek moo di Khadija Mayakor di maire ba itam amal la fa concert bu mucc ci ay boo xamante ne bi jeunesse ba daanaka ku ci nekk rek gis nga ci sa bopp noonu la amee ci Parcelles Assainies amaat ci yeneen i gox nga xamante ne bi moo génn rek di wax ci fête de la musique boobu moo di El Maestro jàpp boo xamante ni bi ràññee nañ ko moom El Maestro day mu wax ne bu ma kenn invité ci ay fête de la musique ndax nag boobaak tey ba Sénégal de Sénégal ba tey moom la ñu nemmeeku fête de la musique heure bu ñëwee la ñuy gis ak la ñuy gisaat artistes yi duñ ci gis seen bopp waaye dañ koy politique ak di ci def ay yëf li lay waral képp koo xamante ne bi invité nga ma bisu fête de la musique du ma fa teg sama tànk ki ko wax moo di El Maestro ax lu brique Paradise génnewaat na clip clip bu mucc ci ayib clip bu taaru clip boo xamante ne bi itam ña ngi ko togg ci toggin bu mucc ci ay ba boo ko gisee itam xam ne liggéey nañ ko ba noppi itam financé nañ ci xaalis def ko la tut mu mel ni rek Akhlou Brick Paradise fi mu nekk nii ñu ngi yokk seen ay production daanaka seen ay clip du te dara ñuy waa yeneen li lee lépp ngir bëgg a nekk rek au devant de la seen ngir raw ñi nga xamante ne bi ñoon ay seen ay concurrent ci wàllu musique ak wàllu rap ba nga xamante ne bi foofu la ñu féetee ñoom Akhlou Brick Paradise wax ci nga xamante ne bi ñu ngi koy wax ci diggante Viviane Chidid ak ki nga xamante ne bi rek moo di Ndeye faatu ti di Titi Laliane Titi Day ak Viviane seenu concurrence ña ngay wax ne fans yi ci boppam ñoo yokk boobule concurrence ndax nag fans yi ñooy nekk ci réseaux sociaux yi di bind di tëkkale ak di salfaañi jàmm ji nga xamante ne bi bu naree dem bay am diggante yooyu la artiste fans yi ci boppam ñooy xambu taal bi bu ko defee itam ñoom ñaar boobaak tey rek gëj nanoo am jàmm diggante Viviane ak ki xamante ne bi rek moo di Ndeye Fatou dem nañ sax ba di leen tëkkale ku ci nekk naan sa morom yaa taxawaay fan si club Viviane itam génn nañu ay trophée Viviane di wax naan Viviane moo ëpp ay trophée moo gën am classe moo fan si ki nga xamante ne bii moo di Ndeye Fatou Tine Titi ñoom itam ci ñu nekkee di wax naan Titi kenn du moom moo gën a neex baat ba noppi itam moo gën a mokk ci ay way gën am classe ku ci nekk daal yaa ngi ràcc jëmale sa kanam li wér te mooy boobi la concurrence fileeg fan si ña ngay def li ñuy def ñoom ñaar seen jàmmoo du yomb ci diggante ñaari artistes yooyu di Viviane ak Ndeye day faatu ab jaxase dëgg-dëgg la fans yi di def ci seenub diggante wax ci xuloo bu metti bu am ci diggante Mbathio Ndiaye ak Mama Vulgaire ñoom ngir nag benn rob boo xamante ne bi daal ka yëkkati woon rob ba daal di ko publier moo di Mama Vulgaire ab vidéo Mbathio moom la publier vidéo boo xamante ne bi Mbathio def ci sol ab rob Mbathio daal di génn daal di ko tont daal ne lan moo tax ngay jël vidéo bi di ko publier te ba noppi te jaayoo ma bi sa la sol ba tax nga di ko publier ci noonu ci la maman vulgaire génn di indi ay tontu daa di wax lu bëri nag digganteem ak Mbathio daa di wax ne dëgg-dëgg am na déception am na lu ko metti dëgg-dëgg ndax nag mbir mi dafay nuru ba nu dajeek la nu waxtaane ak li nga xamante ne bi moom la Mbathio def esthétique ko dugal ko ci ay pasam loolu yi bett na ko dëgg moom maman vulgaire mu wax ni dëgg-dëgg déception moom la am ci digganteem ak Mbathio Ndiaye li wéete wóor mooy ñoom ñaar daal seenu xuloo ma ngay wéy rek di continuer fa nga xamante ne moo di ngay seen mbaa ci njaay waxtu mu mel ni dafa dem rek ci tournée Wally Ballago Seck boobu nar am ci bitim réew te nu koy doore ca Milano Sanekh mi ci série Bété Bété ka koy félicité moo di Ndeye Sine di ab actrice boo xamante ne bi nemmeeku nañ ko ca diwaanu Thiès kaay ba ca nekk série bi na mu amee importance waaye itam na mu amee valeur ak nanu ko liggéeyee loolu yi day chaque jour mu koy gën di surprendre moom Ndeye Sine muy wax nag ne maa ngi félicité ki nga xamante ne bii mooy artiste bii di Sanekh ndax nag da koy seetaan ci série bi rek xam ne dëgg-dëgg Sanekh artiste bu complet la artiste bu mën liggéey la waaye tam sunum sag la ñun ñi nga xamante ni bi ñoo dëkk Thiès kaay ka wax lu ni mel moo di Ndeye Sine wax ci tendance YouTube yi nga xamante ni bi moo génn ci semaine bi ñu wax nag artistes yi nga xamante ni bi ñoo teggagun tànk fi mu nekk nii ci YouTube bi bokk na ci Viviane Chidid Dieyla Guèye ak Mia Guissé Viviane Dieyla Guèye ak Mia Guissé de ñoom ñett ñooñu daanaka ñoom la ñu gën a xool ci YouTube bi seen ay way moo gën a ëpp ay vues waaye mu nekk nii ñoom lañ gën a suivre ko nga xamante ne bii moom la tuddee gauche wala droite ak ki nga xamante ne bii rek moo di Viviane Chidid clipam boobu di xarit Dieyla Gueye wayam bi mu mujjee génnee di dofloo nga ma yooyu la way bu ci nekk rek yaa nga yaa nga toll ci ay millions de vues sénégalais yi di dem di ko xool yi bu baax a baax li lay waral YouTube nde ñett ñooñu fi mu nekk nii ñoo nekkagun au devant de la scène bu weesoo ñoom itam gis nañ ki nga xamante ne bi moo di ndaxte loo ndaxte loo ma ngay bokk ca course ba ak Momo Dieng mi génne clip boobu saf na ba noppi wax continuer rek moom itam di def feuille flamme bokk na ca ba mu tojee Gambia bërki démb tojati na fi nga xamante ne bii nag moo di Kaolack ndangaan moom moo jeen cool yi lu mu bari bari mu ngay gën di wéy di am succès di wéy di feesal ay boitam waaye tam di def ay guichet donte nag ci réseaux sociaux ki nga xamante ne bii moo di Ahmed Cissé mayu ko dara waaye dafa mel ni coow yëngalul moom moo jeen benn yoon ndax it nag coow la loo xamante ne bii lu mu bari bari loolu déstabiliser wu ko moom moom ma ngay continuer focus ci ab liggéeyam ba noppi tam di ci am ndam lu kawe kawe no face lañu gis bërki démb boo njaay bi mu bindee daal di wax ci Viviane Chidid bindaat na tey jile wax ci ki nga xamante ne bi moo di Fat Bintou Seri Babel ba noppi itam di ko dragué ñuy wax naan No Face mi nga xamante ne bi moo nekkoon jëkkëri ci Mia Guissé ana lan moo ko dal bu teyee mu doxaan kii suba itam mu wax ci kële ndax No fees fi mu nekk nii dafay ñaawal Mia Guissé wala boog dafay bëgg a tàggoog am xelaa lu mu ci mën di doon internet yi daal ña ngay bind naan li wéte wóor mooy boo xefee bu Mia Guissé génn ci say loxo nii rek la mën a demee jigéen ñi ku ci nekk yaa ngi posté di jàppale ak di jàppal ki nga xam xamante ni bii mooy Mia Guissé ak lu mën di xew Nofés bëreetul ay fans ci réseaux sociaux yi Wally Ballago Seck ab vidéo bi nga xamante ni bii publier nañ ko ay chaîne am la ci teg chaîne yi yenn yi di jama yenn yi di or ay takkaayam yoo xamante ni bi moom lay takk bu yéeg ci ay concert loolu yi nag lenn li jama la lenn li or vidéo boobu nga xamante ni bi publier na ko moom Wally Ballago Seck mu neex loolu ay fansam daanaka ku ci nekk di ko partagé waat wax ci Momo Wade doomi Prince Wade Momo Wade mi nga xamante ne bi tey moom la ñu bees ca fa nga xamante ni bii ko Wally Ballago Seck daal di ko réussir nag à cent pour cent moom moo wàdd moom gis nañu ko mu daal di photo na ko moom cee am mbégte mu yaatoo yaatu Eumeu Sène nag deuxième femme am nañ dugal ko ci réseaux sociaux yi mu nekk nag daanaka loo xamante ne bi ñi ngi ko defoon ci tabaski ki waaye nag dañu koy soog a dugal bi ñu ko posté nag ku ci nekk yaa ngi ciy amal ay commentaire naan Eumeu Sène dëgg-dëgg ñaareelam bi dafa taaru dof ndey la ñu filmé ci seen bu atroce gis ko muy de benn xale loolu yi nag di image yoo xamante ni bi daanaka image yu doy waar la deret ja bari lool kooku nga xamante ne bi moom la doon jam paaka ñu ngi ko jël rawale ko sapeur pompier yi ñoo ko dimbalee dof ndey nag ba loxo ba fi mu nekk nii ñuy wax a yéen ñu ngi xamal ci ay xibaar nañu ne mi ngi loxo yoon Bassirou Diomaye fay ginnaaw ba mu gisanteeg Emmanuel Macron dem na seeti président Abdou Diouf ñoom ñaar seen ab jàkkaarloo Abdou Diouf di ci bég mbég mu yaatu ba noppi tam yëkkati ci ay kàddu jëmale ko rek ci président Bassirou Diomaye Faye président bi nga xamante ne bi fi mu nekk nii àdduna yëpp ay wax ci moom président Bassirou Diomaye Faye tubaab yi nga xamante ne bi ñoom la fekk ci woon mu di France ña ngay bind ci moom di wax ne ba àdduna sosoog léegi fii ci Sénégal ñu ngi fiy soog a gis benn président boo xamante ne bi dafa am charisme nekk ndaw ba noppi itam gëm boppam li la day benn journal bu nekk ca France France moo bind lu ni mel Ahmed Cissé wax na ci ab lomotif boo xamante ne bi moo ko amal boppam nee na day dafa am ndaw soo xamante ne bi ell la aw sant Wadi Diagne nee na day ndaw daf ko seet si woon ci këram bi mu nekkee Ndakaaru ñoom ñaar ba nu siqee la ñuy siq ba noppi ndaw sa daal di ko filmer ba noppi itam garde vidéo ba mu yàgg mu di ko chantage ci boobu vidéo Ahmed Cissé nag nee na dafa porté woon plainte ndaw si ci noonu ba mu dajalee preuve yi nga xamante ne bi am na ko ba noppi tribunal àtte na ba noppi daal tëj ndaw si lu toll deux ans de prison mois de prison ferme yoo xamante ne bii bi dafay ànd ak deux ans de sursis Ahmed Cissé di wax rek damay leeral rek fi nga xamante ne bii falaa jaar ak ndaw si waxoon naa fi ne am naa lomotif buy circuler nit ñi li lee waral ma koy tàj ci penc mi ngir di leen wax ne leen fii laa ma siqaloon mbir mu ni mel mbirum camp pénal ak détenu yi la fa xew njaw a nga woy di desandiw xam bi téléphone yu bari yi nga xamante ne bi ma nga dugg ca biir kasob camp pénal ña ngi ñuy wax naan ana téléphone yooyu fan la jaar ba dugg fa li wér te wóor mooy enquête ba commencé bu enquête ba sottee loxo dina dar gémmeñ yuuxu dina jëp fuñ ko foogewul woon as ndaw a ngi nii soo xamante ne bi sunu ay naataango yu univers info ñoo ko interviewé mu def ay révélation yu doy waar ci Bougane Gueye Dany wax ni kii di Bougane Gueye Dany moo rey soxnaam ba noppi itam rey goroom vidéo bi daanaka viral na ku nekk yaa ngi koy partagé mu di ci wax di nettali histoire boo xamante ne bi nee na day damaa recevoir kenn koo xamante ne bi ba ma koy recevoir ma nga doon waxanteeg téléphone mama jaaga ci noonu ci la yëkkati ay kàddu ci boppam moom la ndaw si doon waxal mu koy wax ne moomi dani géey laa doon waxal mu may wax rek ma nettali souffrance yi nga xamante ne bi moom la ko bugaan géey dani di teg wax na ba wax kàdd yoo xamante ne bi daanaka ay teggin may ñu ciy jaaraat li wéttéwóor mooy ndaw soosu ñëpp a ngi wax naan ana bugaan géey fan la nar a mu jeeg moom le 29 juin bii Sidi Diop au Zénith de Paris man mii la def parrain bi léegi laa ko recevoir ak délégation bi ñu waxtaan fi waxtaan yu am solo macha allah Sidi bii ma gis moom pare na kon nag le 29 juin Zénith. waa Sénégal asalaamaaleykum le monde entier asalaamaaleykum les sénégalais de la diaspora tey nag maa ngi ne taxaw ak sama mag sama xarit muy Waly Ballago Seck nga xam ne nag il fait partie des parrains ah ci sama bis boobu nga xam ne fa laa jëm muy Zénith de Paris moo gën a ñëw fi nag seet si ko am fi am fi satisfaction bu doy sama xol sedd toog ma kontaan toog donc mon ami mon frère diaspora baa ngi noonu le benn ba gars yi euh, lii challenge la teel a génn nga waral sa tefe ci Sénégal Zénith ku ne xam ne semi nocturne nocturne la teel leen génn jàppale seen doomi réew jàppale suñu artiste suñu star teel a génn mooy wane ni toog nga Sénégal challenge bi mooy teel génn teel a génn salam sa nga sànce ñëw déggee vingt et un juillet ñu ngi mu toj ko mu daal di ñibbi parce que génn bi bi moom bés la ñu xaar. incha allah del déglu del xool.